embouteillage bi yooyu. embouteillage bi waaw ah, ñun ñoo ko teg waa taximaan yi. non teguñu ko taxi waaw mais réew mi moo doxee noonu. waaw yaa ma gën a xam. si gën a yaatal ci waxtaan bi man 2000 francs bu baaxee rek nga yóbbu ma. non da ngay jéem fay amul problème ah, donc kon que nee na 3000 damay daal di dugg si taxi bi ñu daal di waxtaan ah, donc waxtaan lu neex. parce que ñoom it dañuy liggéey mais des fois embouteillage bi dafay daal di indi inconvénient inconvénient yu difficile a difficile kebe bu baaxee nga daal di installé wu ñu daal waxtaan ak moom. nag euh, ci biir taxi bi ginnaaw bi ñu waxtaanee ak moom ba pare nuyu ko mais aussi waxtaan sama kër la sama kër ah, donc c'est toute ma vie ba tax na ah, ma daal di waxtaan moom nee Boy Niang la donc Boy Niang waaw tey émission bi yow la c'est pas première fois nag ba jël borom taximan mais ah, da ak ñoo solidaire <laughs> yéen lu tax seen biir rek balaay dara di xew waaw mais at na moo doxee noonu mm-hmm. ndax nit ki loo nekk mm-hmm. da ngeen di jàppoo jéem doon benn uh-huh. àccandoo dóorandoo mm-hmm. ndax loolooy àdduna xam nga kenn xamul fan la ndax ku nekk mën ngaa dimbali tey fii la suba fee la kon lu baax daal a baax mais lu bon moom yaa ma kenn waxula loolu <laughs> waaw noonu te ni nga waxee noonu la amee ñoom dañu daal di solidaire comme pas possible boo xoolee sax taxi bu paanee quelque part am benn souci euh, technique da ngay di gis dafay si boromu taxi am rek dafay daal di gaare euh, daal di waxtaan ak moom loolu dinañ si gën a mais dañu daal di ñëw ci carrière point parce que euh, mais xam naa mbër bu tudd booy ñaan. <laughs> yow xanaa dañ koo trafiqué. non trafiqué ko ah. jël turam non noonu laa noonu laa tudd. noonu nga tudd waaw ñaan laa sant ko waaw santuma ñaan. ah ñaan. waaw waaw. booy ñaan fa fa la waxtaan fa nekkoon booy ñu lay woowee booy ñaan. waaw loolu dafay daal di am. ci ba léegi nag mooy daw boo demee moo ma doon woowee sama tur normal. doo ah, ko dégg doo ko dégg. waaw d'accord alors booy ñaan. waaw daal di ñëw ci carrière bi. Euh, depuis combien de temps yaa ngi dawal li nga xam ne muy taxi. taxi nag boo xool dawal naa ko ay trois ans affaire yooyu noonu quoi mais nag car rapide laa njëkkoon nekk quoi si car laa doon lang comme jeex ma breveté am transport dem ti dawal super mais super li ma ko dawal ay deux ans laa ko dawal xama rek gite xama tamit metti na metti goo xam ne tamit xama mooy loolu quoi ndax nit il faut ngay xool sa avancement affaire yooyu noonu quoi. ndax tamit arab it métti na xam ne bëri na coow xama waaw jàppal bàyyil affaire yooyu nit ñi du la teg nit daal. d'accord xama moo tax nit looy new rek da ngay ñaan yàlla avancé quoi. d'accord ndax kenn xamul fan la quoi. Mhm. moo tax nga choisir waaw daanaa di ko wax. Mhm. nee na jàmbaar amul ku yàlla dimbale rek mhm. moo am. tax nag tamit dañuy ñaan yàlla xama yàlla dafa ñu ku nekk daal la ngay ñoddul sa morom rek yàlla na gën ci yow daal. amiin jàppoo doon benn xam nga. doon benn yërmaane ci nit ñi. yërmaane taw waaw. Euh, car rapide nag amul bonne presse comme ni ñu koy. waxee amul bon mais nit ñi fañ koy yóbbu xam nga. fa sax quoi waaw ñoom amul ji amuñu jëw bu rafet. parce que des fois nga gis euh, nga nga nga dinaa émission ak ñoom chauffeur car rapide yi. ak apprenti surtout ñoom des fois nga dajeet apprenti bu ñàkk kersa. Euh, boo xam ne amul cër muy xale muy kenn donc nga gis chauffeur bi nga xam ne nag si surtout si chauffeur yi ñi nga xam ne respecté ñu seen client arrêt ah day jot sax euh, ñu nga ne la may leen ma arrêt ñu avancé que ça soit muy car rapide wala muy bus wala muy ku ko ah, ci door des fois soo gisee car rapide di def noonu du question chauffeur bi la apparenté bi moo lay teg pression ba doo xam-xama mm. li ngay def affaire yooyu noonu quoi mais du cadre chauffeur bi ndax chauffeur bu soñoon client bi mu yàpp mm-hmm. ah, encaisse sa xaalisam bu ne la fii da koy may fii mu wàcc bu waax xam mais liggéey car rapide moo bëri direction boo xam ne des fois da ngay def dara sax mais yow doo ko tay quoi ndax du la gënal quoi. mais il faut nga def ko ndax après da nga koy def ba client bi wàcc nga commencé rëcc. d'accord te xam nga te nit ki yaakaar naa bu la joxee xaalisam rek li mu bëgg ko war a defal quoi. ndax da nga war a jaayante ak moom ba moom nga moo tax nga nekk si tali bi. tamit xam nga xaalisam la nekk di la ko jox. Mhm. kon yaakaar naa da ngeen a war a ànd ngeen defalante mu rafet daal. ndax su ëllëgee bu la gisee mooy loolu quoi ndax respect tamit mooy lépp si doomu aadama quoi mais xam nga nit mun la fay xaalisam ba pare ngay xuloog wala nga koy ñàkk kersa ndax nit ñi tamit dofuñu beneen yoon bu la gisee danaan sëfër bi nii la mel ak nii la mel su bëggoon sax dootul yéeg waaw moo tax lépp rek daa war di rafet quoi xam nga ndax àdduna mooy doxee noonu quoi ñiy yàq ñi ngi yàq ñiy defar ñi ngi defar en tout cas yow mii ni ma la déggee ngay wax bi nga nekkee euh, chauffeur car rapide. waaw ah. ah, wala coxeur ku amoon ah. respect nga si nit ñi am nag ñu yaru ah. non man moom nga xam ne dañuy dañu yaradiku. dañuy influencer ñi nga xam ne dañu daal di yaru. donc gis nga ak ñu solidaire gis nañ ne dañ koy tourneel taximan yi di ko biib ah, donc di ngi noonu <laughs> alors ça fait trois ans bi nga nekkee ci wàllum liggéeyu taxi entre taxi ak car rapide mën nañ jàpp ne taxi bi moo gën a moyen bëri pression moo gën a neex te moo ëpp xaalis waaw ndax taxi moom da ngay dem ak sa bopp quoi mhm. apprenti du la yilif du la teg pression mhm. da ngay xëy sangu ba set taal sa oto mhm. sa heure wàcc bu jotee nga wàcc mais apprenti bu dee super apprenti baa ngi lay contrôler defal nii defal nii defal nii te doo mën a bañ quoi. ndax mooy liggéey bi moo leen ko moo leen moo leen ko laaj te moom ngeen seex kon dèjà li mu bëgg moom nga koy defal ndax soo ko defaloo mu ne ay ah, yàq sama liggéey te nii la demee des fois danga koy def sax mais du la neex mais il faut nga a def ko waaw mais bu dee taxi nag di nga dem ak sa bopp xam li ngay def waaw xam nga dawal ko su normal teg su normal nit ki soo ko bëggee mais tamit taxi am na loo xam ne tamit xam nga man su ma la xoolee neexoo ma du wax ak yow nekk nga nekk ngay yeb nit ku nekk ngay yeb da ngay yeb nit ku baax da ngay yeb nit ku bon xam nga da ngay yeb ba ni da ngay yeb naka su dul noonu moo tax nit ki rek soo xoolee rek ba nga xam ne kii doy na rek war nga mën a waxtaan ak moom ngeen déggoo affaire ndax kenn xamul fan la tey mën nga ma dimbali suba mën naa la dimbali waaw tamit saa yoo soo xëyee rek li nga war a nekk si ngay nekk ndax moom mooy sa job quoi man foofu sax dinaa fa gën a ñëw dinaa fa ñëw. ci diggante taximan yi. ak li nga xam ne mooy clientèle yi. parce que dañu ne waali sekk sax woy na ko ci benn woy woy si benn woyam. Euh, moom maanaam woy na docteur. woy taxi ndax mu nekkoon docteur bi bu doon nettali. wala taximan bi di nettali àddina yàqu ndax yéen yéen a yeb ku ne. Euh, mais docteur bi aussi mooy faj ko ne mais nit ñi jànk bi liggéey ci kër tamit. Ah. mooy fréquenter. ak ku nekk donc mu nekk ak gardien ba ca kër ga donc ñii dafa nekk ñoo xam ne faaw ñu am euh, bàmmeelu biir mais faaw ñu am également li nga xam ne mooy maandute ak dugg lu seen yoo nekk ah, des fois sa diggante yow sa relation yak client yi ni muy ah. demee parce que des fois ngeen daj euh, client yu doy waar mais yéen it des fois ngeen doy waar lool waa ñëpp comme li ma la wax rek ñëpp bokkuñu yam quoi mm-hmm. mais nit moom boo yeewoo sa kër bàyyi sa yaay bàyyi sa papa yaakaar boo yemee kii di sa morom papa wala sa morom yaay yaakaar naa lu mu def rek war nga ko mën a gérer quoi ndax da lay leer na buñ ko defoon sa yaay wala bu doon sa yaay tamit da ngay muñ quoi yaa ngi dégg mais des fois tamit nga yeb ay clients yoo xam ne dañu compliqué yaa ngi dégg li ma la expliqué waaw da ngay boo defee lii ñu ne la nii laay def nga ne lii ñu ne mais da ngay mujjee muñ xam nga xam ne oto bi moo leen boole yàggul xam nga du yàgg du bu yàggee ba yàgg matul 15 minutes wala 20 minutes ku nekk wàcc dem sa yoon mm-hmm. xam nga mais am na tamit ñoo xam ne comme man maîtrise bi ma am ñoom amuñu ko dañuy bëgg bu client bi ne benn ñu ne fukk bu client bi ne benn ñu ne fukk te loolu tamit baaxul munoo di dawal di xuloo ndax munoo di xool ci kanam di xuloo client bi xam nga waaw loolu tamit baaxul quoi <laughs> mais ñëpp daal boo ko ñu yem <laughs> moo tax xama am na ñoo xam ne tamit ñu oto quoi comprendre dañuy xëy xëy rek ñëw ci oto yi mais bu nekkee yow mi nga nekk da ngaa nekk ci oto yi ba xam lépp oto lépp di nga ko mën a maîtriser quoi mais oto yi dafa metti de oto yi da ngay jaayante ba sonn mais dafa metti des fois dañ lay tooñ tooñ yoo xam ne après mais xama rek uh-huh. dangay ngay gérer lépp te xama ne bu nekkoon seen kër duñ la tooñ wala buñ tase woon ak yow si mbedd duñ la tooñ mais lii moo ko waral quoi il faut ngay gérer mm-hmm. waaw ci tooñ boobu laa lay wax ñaan dañuy daal di wàcc mm-hmm. Euh, wàcc ndànk toog si kanamu oto bi. donc voilà daal di eggali suñu émission bi. parce que li ma war a wax ci tooñ bi nag bari na lool waaye ñoom it des fois ñu tooñ de ak ñu mën a tooñ te bari histoire <laughs> donc kebe bu baaxee rek ñu daal di wàcc ah àndal booy ñaar bu ko defee booy ñaar ñu daal di waxtaan ak moom bu baax a baax. Euh, fas yéene jàkkaarloo suñu frère bi nga xam ne euh, moo nekk suñu invité tey di euh, Boy Niang donc voilà booy Niang. waaw amoon may wax ci wàllum problème mu client yi ndax ginnaaw bi ñu doon waxtaan tout ci client yi la ñu nekkoon. Mm-hmm. ak ñoo solidaire. waaw ba léegi ñoo ngi may romb nuyu nañ ma. waaye parce que taximaan génn na toog dañ koy nuyoo. <laughs> taximaan yi li ma leen xamal. mais booy ñaan. waaw avant dinañ ñëwaat ci client yi. mais dañuy daal di ñëw si propriété taxi yi. gis nañ ne bi ñu duggee sa taxi. Mhm. Euh, set na. donc c' est bien organisé. c' est bien propre et puis très bon. Mhm. donc ñu gis ne loolu c' est am na nag mais dafa rare si taxi. am na taximaan yoo xam ne da ngay dugg seen oto bi pënd tilim ah, mu mel ni. Euh, sabar bu tas si biir taxi bi ah, la muy xeeñ sax mu neex ndax ñoom ah, benn taximaan yëpp na ma moom pendant une semaine moom ci ci tali bi di pour njabootam loolu c'est bien mais pendant une semaine yooyu sanguwul donc loolu euh, du ma ne sax bëggum dërëm la mais salte aussi moom ci ak ci xaw a tiit tuuti donc ñàkk gëm yàlla ndax li nga war a am rek da nga koy am ah, loolu ci propreté bi dama bëgg wax waxtaan parce que des fois tamit taximan yi amel ak client mais loolu soo ko gisee lu mënul ñàkk la quoi ndax taximaan bi day tooñ client bi client bi tamit day tooñ taximaan bi yaa ngi dégg mais lépp lépp dëkk bi moo koy waral comprendre nga léeg-léeg da ngay yeb client waxaale ko mais di def ci tali bi temps boo xam ne da ngay énervé wu quoi ndax embouteillage léegi client bi fa mu jëm sax doo ko fa àggale ndax di nga ñëw mu ne la fii laa jëm koñ bee ngaa jëm nga ne ko non maire mënu ma dugg foofu fii laa yem ndax boobu énervé wu nga waa ndax la nga daj ci tali bi dèjà fayu la normal quoi comprendre nga lu léegi léegi énervé boobu ngay énervé mooy lan da ngay mujjee wàcce ko si tali bi lay ñaan yàlla bu doon sa yaale doo ko def nii bu doon sa mais da ngay maîtriser rek dem mais su nekkee da ngaa saf làmmiñ da toog di tontonte ak moom def yow yaa ko tooñ <laughs> am déet yaa ko mais tali bi moo la ko teg ak embouteillage beeg yooyu moom defu la dara ndax daa ñëw wax la lim am yaa ngi dégg ngeen d'accord su nekkee arrangé wu la bàyyi ko fa. yow yaa waaw. yaa ngi dégg lam la lam la wax bu la arrangé wul da nga ko fay bàyyi yaa ngi dégg mu xooli sa morom. mais waroon na ko yéegal mu yéeg ba pare yóbbu woo ko fa mu jëm. loolu tooñ si si la bokk waaw mais client yi tamit des fois dañ lay tooñ de dañ lay tooñ ay tooñ yoo xam ne da ngay reeb tas yàlla. lay tooñ waaw da lay tooñ mais yéen client yan genre tooñ lañ leen di gën di tooñ parce que ah. yéen tooñ bi ngeen gën a mën a tooñ client yi ah. tey maa leen fi toogal yéen client yi client yi bu leen ah. a mën a tooñ mooy exemple bi nga joxe léegi mhm. nit ki waxaaleen yow ne la fii laa jëm nga dem ba ci kaw tali bi ne ko doon du ma dugg ci koñ bi te pourtant ba muy waxaaleen yow ci njëlbeen wax na la fa bu leen ñaanalee day dal yéen ban client yéen client yan tooñ lañ fois booy waxaale da naan ko man bu may amee damay dugg ba si biir koñ bi wala damay dugg nii wala si kaw tali bi mais client yi dañ lay waxtaan comme ça dañ la Djily Mbaye laa jëm rek yaa ngi dégg bu ñëwee ba Djily Mbaye te am na oto yoo xam ne boo ko dugalee ci suuf si pour nga génnaat da ngay am problème ah, yaa da nga naan ko si biir koñ bi nag laa jëm am na suuf wala nii la dem bu ko arrangé mun la yéegal su ko arrangé wul mun la arrangé wu mais doone ko si koñ bi laa jëm Djily Mbaye bu ñëw ba si bopp koñ bi wàcce la yaa ngi dégg nga ne ko waxuma la fii fee laa jëm mun na la du ma yëg loolu rek tooñ nga ko ndax waxaale woo leen foofu

mais clients yi moom dañuy tooñ tooñ boo xam ne dafa garaaw de. waaw waaw léeg-léeg mu ne la yow xamoo sa bopp. xamoo sa bopp bëri histoire ah. mel a neex de leen man ci bëri histoire man tamit ci neex jàmm ah. donc ñu daal di ñëwaat ci propriété bi. Ah. donc euh, comme tout à ni ma ko waxee euh, sabar bu tas bi si biir taxi bi. waaw <laughs> tilim tilim bi si biir taxi bi. waaw damaa am beer yeeg ah jotu ko ko tàngi si biir taxi bi nañ ci wax. parce que yow bu sa sa taxi yaa ngi nii propre sol sa jean bu propre def sa t-shirt bu propre ah, ah. ah def sa casquette voilà ah, et pourtant sa taxi bi ñu fi duggee tam noonu la propre doo setu ginaar tey bu ñu boo propreoon sa jëmm ñu dugg sa daal di tilim mën nañ ne setu ginaar la mais sa taxi dafa propre set bien organisé mais aussi di xeeñ mu neex waaw c'est que uh-huh. liggéey taxi moo demee noonu ndax ku nekk nga yepp waaw bala ngaa xëy di ko taal war nga ko comme ni ngay sangoo noonu nga ko war a sang ba mu set yaa ngi ndax client bi sol yëre yi baax lay sol génn këram yaa ngi dégg bu tuggee nga taxal ay yëreem loolu rek àq la kon taxi bi comme moom mi lay jox xaalis war naa xolam war na seet ndax taxi war nga koy raxas chaque jour comme yow saa yoo xëyee ni ngay sangoo man mënuma xëy taal oto te man tamit mënuma xëy dawal oto te sangoo ndax su ma ko defee du ma liggéey ndax tàmmuma ko ndax xaw ma ko voilà chaque jour nag laa la wax de amul bala maa toog ci oto bi damay sangu oto bi day sangu ba set ndax man loolu laa xam waaw su ma xëyee sax fanaan ci tali bi des fois ay samedi yooyu ma fanaan ci tali bi ba ay deux heures trois heures yooyu dinaa xool benn station sax dugg fa sangu yaa ngi dégg continuer sama liggéey bu waaw sama oto bi dinaa ko raxas deux fois par jour waaw ndax man loolu laa xam mais am na ñoo xam ne tamit ñoom fii la nga xam rek ngay continuer ah waaw mais si man dama jàpp ne booy xëy di si yeb ku nekk war nay set ci biir quoi nga koy xëy di raxas ndax 2000 bi ngay fay lavage mhm. yaa dégg wàññi ko la dara ndax di nga benn client rek di nga am lu ko ëpp waaw yaa ngi dégg mhm. mais taxe bi ngay liggéey bu lay indil sutura soo ko respecté wu du dem yaa dégg bu nekkee lu yàqu nga bàyyi noonu mhm. lu yàqu nga def nii bu yàggee mu taxaw am déet nit da koy affaire danga koy respecté comme ni nga respecté sa bopp en tout cas comme on dit moi la 7TV c'est ma famille la 7TV euh, c'est maison donc euh, ni 7TV nekkee sama maison ma jox cër ña may liggéeyal jox cër samay collègues mais aussi jër jox cër téléspectateurs yi ba nga xam ne bu ma génnee damay daal di wax ak ñoom ñu kontaan toog ñuy toog ndax euh, góorgóorlu nag muy daw appréciation yeeg encouragement yi fu na lay jógee ah ci international bi ci national bi ci sous région yi ñëpp a koy seetaan ba tax na cër boobu ma leen jox yéen it seen liggéey bi ngeen di liggéey moo xam dawal taxi wala leneen ak leneen da ngeen koy daal di jox cër ñu daal di ñëw ci tali bi bi ñu jógee ci propriété bi. avant ñuy ñëw ci seen concurrent yi euh, tali bi temps yi bari na lool yi nga xam ne mooy ay accident foo tourné accident la donc des fois nga gis accident yi nga xam ne euh, naara day musiba yàlla nañ si yàlla musal ñun ñëpp. ah nit ñi dañuy daal di ñàkk seen bakkan sur parce que tak euh, euh, accident bi dafay daal di métti lool. am gis accident yoo xam ne say matériel ñooy yàq yooyu sax ñoo tane am gis accident yoo xam ne coow lay indee xulloo ndax yaa ma xoos xoosoo ma yaa defee ni yaa dawalee ni yaa dawalee ni selon toi en tant que euh, chauffeur ah, lan mooy créer li nga xam ne mooy accident yi. waaw xam nga chauffeur dafa bëri te wute. Mhm. comme li ma la waxee oto bala ngaa doon chauffeur da nga koy jàng ba xam. man man avant may doon chauffeur def naa am mécanicien cinq ans. yaa ngi dégg jékku-jékki rek dama ñëw rek jékki-jékki dugg ci oto yi. yaa ngi dégg ndax oto ay nit ngay yeb yeboo ay xar. yaa ngi dégg li ma expliqué mais ñëpp di nekk ci man nekkul ci keneen. yaa ngi dégg ndax oto benn distance bu ndaw la rek su ma xëccee fii nga xëcc fii damay feree ne bàyyi la nga dem quoi boo demee minute ma topp sa ginnaaw dangay taxawaat ma romb la. yaa ngi dégg voilà mais dangay gis kii day xëcc fii kii xëcc fii maa am priorité maa am te Sénégal naa la xamal ñaa nag priorité doxu fi de. doxu fi de waaw ndax boo toppee priorité moom chaque jour yaa ngi ci kaw sama morom yi dinañ gaañu waaw chaque ngi ci affaire yi xol la quoi da ngay mayante mhm. yaa ngi dégg la ma issue mais am na ñoo xam ne dañuy topp circulation kay maa war a jàdd ma mais comme sama mbokk taximaan yi xamuñu loolu ndax dañuy yàqamti mm. yaa ngi dégg dañuy yàqamti ci rond point la ñuy ñëw boo nee nii xam nañ ne waruñoo dem mais dañuy tagg. mais tamit xam nga lépp rek da ngay maîtriser quoi. man. ñii am nañ am nañ gis nga suñu chauffeur yi te télé bi waa 7TV am na kenn koo xam xanaa ma suturaal na sama doom nga xam ne waaye bu xam ne moom laay waxal moom <laughs> mënul supporter taximaan yi parce que taximaan yi duñ ko may dara dañuy xëccoon moom di defanteen moom ci tax mais lu tax ngeen def loolu en fait man ah, ñi si taximaan yi du ñu am priorité ah ba pare naqari nañ deret du ñu maye ba pare boo waxee ñu saaga la wala ñu xulloot yow wala ñu créer la histoire te ci yoon pourquoi. man jigéen moom ba ma dalee dawal ba léegi jigéen moom am naa si moom yërmande moom. mais góor nag. non damay dañuy ñëw mooy jigéen moom am naa si moom yërmande quoi su ma la xoolee sax nga ñëw ci rond point ma xam ne ni damay fere ne arrêté la bàyyi nga dem mais tamit particulier yi daa am ñoo xam ne dañu xaw a indiscipliné yaa ngi dégg li ma da ngay jékki-jékki xam nga taxi moom fu la client arrêté rek fa ngay duraate ndax bundu pale sax da ngay taxaw di jël client mais léeg-léeg ngay taxaw duñ am sax a may la nga wax ak client bi ñëw wàcce sa verre ah vous êtes des imbéciles xam nga amoo commencé wax yooyu quoi xam nga yooyu tamit bu yàggee na ngay gis sa bopp quoi yooyu bu yàggee da ngay yàggee da gis sa bopp xam nga di la def ay affaires yoo xam ne mooy loolu waaw loolu la demee nag waaw waaw mais bari ki yi da ngay taxaw ñu saaga la <laughs> waaw ah, <laughs> waaw di eh boy eh vous êtes des imbéciles waay sel waay ah fi war nga fi taxaw <laughs> yooyu tamit mooy loolu quoi dafa xaw a yooyu tamit day xaw a métti si xol quoi <laughs> léegi nag bu nekkee yooyu tamit xam nga da ngay jaayante. da ngay jaayante xam nga jéem a njëkkante moom sa kanam. bu ñëwee tamit moom it nga tànc. nga defar waaw nga tànc. bu nee nii nga ne nii te xam na ay ragal lañ mënuñoo dawal. boo nee nii ñu taxaw. <laughs> da ngeen doy waar de billaay ay ragal lañ da ngay fàtt damay ko ba moom may <laughs> mais da ngay gis nga yow xam nga ni kii. auto <laughs> école la lay lay dekk ndax moom ci oto bi nga xam ne dañ ciy dugg. pour jàng de la publicité. Euh, ñu daal di def auto école bi kebe auto. waaw wala Keyna auto. nga xam ne di auto école la. mais yéen boo leen gisee nit ki nekk ci volant bi. di hmm. jàng daal <laughs> ngeen di mel ni da ngeen am ay rab di leen piip. di leen def ko des fois nga ne leen nii ah, bu ko defee mu perturbé ah bu bu amul euh, prof boo xam ne sax euh, moom. am na fit tuuti xale bi mën naa bàyyi la ma pourquoi yéen tamit seen xol bi tam doo leen ko indi yéen si yi. non bul de bul non bul. xoolee sax ñenn ñi du mhm. mooy li ma lay wax nee am na ñoo xam ne wàllu oto xamuñu ko. Mhm. comprendre nga ñàkk ñàkk xam oto boo gisee oto école xam nga ne kii. maîtriser wu tali yaa ngi dégg mhm. war ngaa mën a ko tuuti ba am distance bu yaatu nga dem mais xam nga li nekk si man waaw mais tamit li nekk si man nekkul ci keneen yaa ngi dégg li nekk si yow nekkul ci moom. ñëpp soo ko bëggee jàppee ne kii nii la mel kii la mel. da ngay nax sa bopp. waaw moo tax nag nit ki doy def rek il faut ngay ànd ak maîtrise di def ndànk. en tout cas waaw il faut ngay ànd ak maîtrise di def ndànk. il faut ngeen bàyyi xel. même nit ñi jàngul sax da ngay gis des fois oto yu daj loo takkaloo takkaloo ba euh, euh, tey nit ki buy buy buy déparaat sax war a reculer tuuti du am fu mu aw te loolu tamit euh, ci tooñ la bokk parce que souvent dañuy naan. oto ki nekk ci ginnaawam moo tooñ ak nu mu munti demee ki nekk ci ginnaawam waroon naa may distance quelques distance euh, nit ki nga xam ne moo nekk ci kanamam mais aussi ba tey si si yi dinañ si ñëwaat mais da ngeen am ay concurrence si tali bi. li ci mel ni ah, ah, ah, euh, car rapide yi li ci mel ni bus yi li ci mel ni deux roues yi surtout deux roues yi borom cag-cag yeeg borom livreur yi mënoo leen supporter borom livreur am na ay application également yu bees pour ne pas faire de la publicité euh, ñi nga xam ne ñoom euh, am mënoo leen supporter ñooñu mënoo leen supporter même am na ñi nga xam ne logo application bi du nekk seen oto mais dañu jël seen oto particulière di di def application boobu noonu xam mhm. ay problème yu jàngoo ay problème yaa ngi dégg. nit yi moom ma ah, yaa ngi dégg ay problème problème waaw yaa ngi dégg problème <laughs> moto yi ngay wax ay problème mu excès yeeg yaago yi <laughs> ah wala waxoo lool. waaw yaa ngi dégg. Ah. loolu moom man santiruma ko quoi. yaa ngi dégg la ma ndax fii moom la nga war a am rek ngay am quoi. yaa ngi dégg li nga war a am. mënoo ñibbi sa kër te doo ko am soo jéemee am leneen sax da ngay faatu yaa ngi dégg man ay moto yi ay jàngoo yi yàquluñ ma dara yaa ngi dégg fu ma jógee la ma war a jóg laay jóg mission ba ma nekk si laay dem dox mu jeex ma ñibbiwaat sama gaale quoi xeexumaa kenn xulowumaa kenn mais ni ngi may gisee nii nag damaa bëri histoire boo ma tooñee doo ci génn de voilà noonu la demee boo ma tooñee doo ci génn mais ci yow soxla nag quoi yaa ngi dégg la nga war a def def ko <laughs> jaral na ma ko. ah buñ la tooñee. laa ilaaha illallah man ni ma xanaa gisoo ni ma tuutee. Uh-huh. ah doole bi bari nag. ni ma tuutee noonu laa naqaree deret du ma la tooñ nag ko uh-huh. waaw yaa ngi dégg mais ay affaire yu yàngu ay affaire yi moom. man moom waaw man moom kiiwu ma si ko wax dëgg yàlla kiiw ndax ñoom dañuy ñëw di may imposer yàngu mais man du ma ko def. Mm-hmm. man du ma ko def man neexuma man du ko def. ay problème mu x yooyu yëpp du ma ko def ndax xam nga soo naree jël kii commander yàngu nga dem ba fa mu nekk jëli ko dugg si koñ bi. client bi ngi taxaw si kanam di la xaar soo avancé deux mètres rek man moo ñu jël benn client moo ëpp la la kee di fay. am déet non non non non loolu moom taxi moom liggéeyam moo demee noonu mais taxi mënoo jël ñaari tali ñetti tali te client arrêté wul. am déet soo jëlee tali bi ba mu jeex client arrêté wul boo tourné waatee boo jëlee tali client arrêté la. waaw ah, ah ñoo ngi sant yàlla de. ñoo ngi sant yàlla waaw la sénégalais duñ nangu am xaalis yow ko ci wax mu ne ñoo ngi am ñoo ngi sant yàlla ñoo ngi sant yàlla ah ñoo ngi sant yàlla de waaw uh-huh. ah, te dégg naa aussi taxi dafa bëri frais tey mën ngeen am client mais dafay bëri ay petit paan yi nga xam ne ñooy oto sax moo mel noonu oto moom kon jabaar comme xale yu góor yi ni ñu koy waxee waaye ñun jigéen ñi dañu naan oto comme doom parce que euh, non seulement bari na li nga xam ne mooy frais mais aussi bari na ay problème yu ndaw yi nga xam ne ñoo ci nekk oto moom bëri na frais moom mm-hmm. bëri na frais trop mm-hmm. bëri na boo xëyee lu mu gàtt gàtt di nga ci def 15000. oto bi gaz wala laa la wax de di ci sol quinze pour journée bi yëpp. waaw journée bi yëpp di nga sol 15000. yaa ngi dégg oto bi dina jël 2000 ndax di ko raxas. yow da set. waaw yaa ngi dégg li mu leen seen nawle bii ah? di nga ko raxas ba set. di nga si ñàkk di nga gis lu rafet jënd def ci. Mhm. waaw noonu la demee ndax li ngay liggéey da nga koy respecté. am déet moo tax ku la gis moo tax ku la gis mën laa respecté. waaw ndax ay yi boo yoroon sa xaalis di jël boo ma gisee mu ñaaw wala da naan kii dafa salte du ma ci yëg. dañoo am choix oto. noonu la demee te nag te man def nag man ay xaritu jigéen rek laa am. kese da jigéen rek laa ñu daal ñëw ci euh, suñu prochaine question bi nga xam ne euh, moom la ñuy daal donc mu nekk euh, accident yi. accident yi faaw ñu waxtaan si. parce que ginnaaw nag ñu jëmale si 2020. 2023 bi dugg si 2024 bi gis nañ si accident bi bare bare bare bare bu dul bus di deux roues deux yi dinaa leen jël bus yi dinaa leen jël góorgóorlu yéen ñii dawal yëpp dinaa leen jël parce que faaw ñu waxtaan ci tali bi aussi donc euh, bu dul deux roues di bus bu dul bus di car rapide ah, donc ñu gisoon euh, en 2023 def na un an léegi janvier si je pense que c'était en janvier 2023 accident bu mag bi amoon 6 kilos Euh, ñu tegaat ci quelques mois amaat beneen accident bu fa bu amaat ci côté yooyu aussi ah donc accident cyclo bi amoon na ay quarante et quelques morts donc loolu nekkoon à part Batolo Joola ah, accident boobu bokk na di gën a rëy te euh, bëri dese ci Sénégal ñu daal di euh, bëgg ne xam ma bëgg laa laaj si si lan mooy waral accident yu bari yi nii nii si tali bi yow en tant que chauffeur. Ah. accident yi lan moo koy waral. waaw ah, xam nga chauffeur moom xëyoo di ñaan yàlla naan damay dawal pour bëgg a xam nga doo gis rek ndogalu yàlla la mais yow bi nga xam ne yaay yëpp nit ñi di dawal tamit yaay dégg wala ngaa dem war ngaa vérifier li nga xam ne si nga yëpp nit ñi muy pono direction lu ne war nga ko wéy fekk waa waaw yaa ngi dégg mhm. ndax pono mooy oto mhm. comprendre nga boo xoolee ne pono bi dafa iise wala pono bi xam war nga taxaw changé soo ko dem quoi mais tamit sama mbokk yi des fois dañuy sooxaale loo xam ne tamit xam nga munoo wax lépp quoi mooy lan waaw mooy ay genre pono affaire yooyu te pono mooy oto comprendre nga li ma la expliqué pono mooy oto. yow comme que yow yaay waaw que yow yaay sëfër da ngay dawal amoo oto. yaa ngi dégg da ngay dawal ñuy versé mais boo xoolee yow miy sëfër di dem ndax borom oto bi nekkul ci oto bi yow la ko jox yow yaay res oto bi. soo xoolee pono bi dem war nga déclaré borom oto bi ne ko nañ jënd temps de pono wala nii ak nii ndax pono bi tat commencé na dem affaire yooyu noonu waaw bu bañee nga gaaral ko otom ndax moom it yorul sa wërsëg quoi yàlla moo yor sa wërsëg yàgg ngaa dund te xamoo ko am déet mais da ngay jël risque boo xam ne tamit xama dem mooy indi ay affaire yooyu quoi ñu gën a xoolaat oto yi rek xama gën a defaat attention jéem a xoolaat ndànk-ndànk quoi uh-huh. waaw Euh, ay problème de frein la ñuy am. cest à am na benn bus bu bu Saaraan 44 euh, bi dama koy tudd yàggul dara. Ah. mu Saaraan fii ci VDN bi Kébédu VDN bi la euh, je pense que am na 3 mois ndax problème de frein. Ah. xam nga ne loolu donc dafa dafa nekk problème. est-ce que c'est normal nit di dawal oto ba amul frein. non oto moom déglu bu baax ndax frein mooy oto. waaw frein mooy oto. mais frein tamit naa la xamal ñaar boo ko dawal doo xam ne dafa paat nga koy dawal frein da lay dab. talay dab si yoon talay dab si yoon da ngay dawal ba si yàgg sa tiwo air dagg wala nga làmb doo fa fekk dara oto noonu lay baane frein mais nit bu ànd ak xelam doo xëy taal oto bi bës frein yi te amul nga ne da nga koy dawal loolu c'est pas normal loolu mënul nekk frein saa yoon bu la dabee rek ba ne oto bi daa pan frein rek da ngaa dawal ba si digg bi bés tiwo toj wala raakol dagg loolu mooy indi accident frein waaw mais mënoo yor sa oto xam ni kii daa paan frein ngay xëy di si liggéey noonu loolu noonu loolu la ak beneen bi nga xam ne toujours ci oto yi ah. euh, voilà foofu la ñuy jeexalee ñu daal di def tàggatoo parce que sama caméraman moom ngay signalé mu temps bi moom ngi jeex ah. euh, est-ce que c'est normal ngay dawal oto di ci yeb ay nit même bu nekkee sa oto personnel la yow yaa ko moom est-ce que c'est normal ay visite euh, di am yow borom oto bi doo dem defi visite parce que nag gis nañ ne léegi li xew mooy ah. da ngay dem yóbbu sa oto ñu visite ko. mais ñi nga xam ne du ñëpp mais ñi nga xam ne ils sont pas professionnels. du ñu visite oto bi dañuy fay ñu ne la oto bi baax na. te pourtant ñooñu noonu dimbale wuñu leen de dañu leen dugal si ay problème parce que tey oto bi mënoon na am benn problème euh, euh, te yow doo ko yëg. waaw yaa ngi comprendre loolu mooy xëy ay accident est-ce que c'est normal ñooñu di def loolu ñu ñu koy def est-ce que yéen aussi yéen a ngi respecté seen visite. non visite technique moom boo demee ba ngay passé ah dam na la visite technique pour oto la aar la aar la yow mi koy dawal mm-hmm. war ngaa dugg ci biir. ñu xool machine yi tegu lu baaxut ñu dàq la nga dem wuti ko defare ko yaa ngi dégg soo diggaatee am mais ay arrangement visite moom wax dëgg yàlla man d' accord ma si ko wax d' accord ah man ba ma dalee dawal ba léegi bo musuma yor oto boo xam ne dañuy ah damay dem yóbbu ko ñu passé ko visite normal génn tafal ba ma dem man loolu laa xam si visite quoi waaw. avant ngay tàggatoo tool moo la métti si tali bi ñàkk ne am na lenn loo xam ne metti na la si tali bi euh, nga nga di ko wax. avant tali bi daal tali bi daal xam nga lan moom suñu métti sama mbokk yi rek laa bëgg ñu dimbali leen sama mbokku sëfur war ngay ne ñoom samay waay lañ quoi alu Dakar yi waaw ñoom samay waay lañ quoi xam yàllaa ma tax ñu bëggal ma seen bopp mais tamit son nañ ci tali bi quoi <laughs> na leen yërmande rek <laughs> ndax àdduna tamit ñëpp a ci xaj quoi waaw na leen dimbali rek dañ leen sonal <laughs> ah mujj naa doy waar rek moom xam naa kenn mënul wax lépp de waaye mujj naa doy waar daal moom mais daal sama mbokk al Dakar yi moom. sonn nañ trop quoi. waaw billaay sonn nañ te ay jàmbaar lañ nag. billaay ay ja ñii dañuy jugee ba ngaay ñii Touba ñii Louga ñii Ndar xam nga dajaloo benn place di taxale mais xam nga ñoom tamit li leen di tere bu ñu ko amoon tamit xam nga kenn du leen jàpp quoi mais tamit dañuy tollare rek jàppale te waaw dañuy tollare rek te jàppale leen te yàlla tax quoi mais nag naa la xamal ñaar àdduna lépp mënul sotti de waaw lépp mënul sotti yërmande ji mooy daw rek ngay contrôler waaw am waaye yërmande boobu bu ko defee est-ce que nag euh, Sénégal dina daal di lii Kébé baal ma parce que dañu jàkkaarloo plage bi te dañoo daw ci tali bi. ma dama ne ko mu yóbbu bi 7TV pare 7TV yóbbu ñu daal di daw ci plage bi ñu jàkkaarloo bi ñëpp xam nañ ne géej bi euh, am na ñi nga xam ne dañuy daal di voyager euh, ak voyage bi nga xam ne clandestine la ah, donc c'est-à-dire jeunes nga xam ne euh, duñu dañu liggéey comme yéen ah, donc am na ay jàmbaar ci réew mi am na ay liggéeykat ci réew mi mais am na ñoo xam ne ñoom seen xalaat bu gàtt ñoom hmm. pour ñoom bu ñu dugg Europe rek duñu tekki donc voilà donc yow lan ngay conseiller jeunesse bi nga xam ne ñoom du ñu liggéey ak ñi nga xam ne dañuy jël gaal bi pour daal di dem. Europe ah, Barça Barça ou liggéey moom dafa baax si doomu aadama quoi ndax xam nga temps bi xaarul kenn mhm. bis bu dem du ñëwaat. Ah, yaa ngi dégg saa yoo xëyee rek la nga war a nekk war nga see nekk waa mais bul yaakaar doomu aadama mais am na ñoo xam ne ci poosu jàmbur la ñuy yaakaar. Mhm. yaa ngi dégg di xëy du leen ñaan te loolu jëmul jëmul kër quoi loolu avancé lu réew ndax loo yàgg-yàgg dangay jëm mag soo tàmmee loolu boo doonee mag dangay am jabar da am toog lekkan kan moo la yoroon loolu yaa ngi dégg man sama boy yi sama boy yi yi bëri jël nañ gaal gi dem sama boy yi taximaan yi bëri jël nañ gaal gi dem parce que yàlla ñii ñàkk nañ seen bakkan ñii àgg nañ waaw mais man moom jëlumay gaal quoi non man moom jëlumay gaal non jëlumay gaal uh-huh. man déggoole ma la man Europe ak fii laa yemale. man Europe ak France laa yemale. surtout surtout yaa bi dem Europe ak France fii laa yemale Sénégal. waaw ndax man nammuma dara. lu sama morom am dama koy am. lu ma bëgg dama koy am. jëluma yëfu jàmbur tuxuma séeréet naanuma saagara. su ma xëyee la ma war a nekk dama siy nekk yàlla nag bu ne nii lay demee far force la koy demee kenn mënu si dara Euh, téléspectateurs yi di seetaan ñoo may rey donc mooy question bi nga xam ne insécurité bi ah. si diggante euh, taximan ak client wo wala si diggante euh, taximan ak tali bi parce que des ah. fois ci ah. insécurité des fois ngeen dawal seen taxi ba pare ñu agressé leen ci lii bi am ay bandi yu sànni ay nena lu nañ def ko ah wala sax nga nga nga nga nga en tant que taximaan ngay jéem a agressé sa client wala client jéem di la agressé loolu dafa ñaaw donc loolu noonu lan nga ci wala mën a sànni loolu dafa ñaaw loolu dafa ñaaw si boppam yëpp client ba pare di ko jéem a agressé wala dafa